indi la méthode bu xamante ne xalaatoo ko. te sa yii moo koy du lii rek. Ah. ak xel bi ak connaissance yi. ma ah, am di ko joxe ak intelligence boo a boole. c'est très important <laughs> te gis na bi sànq duñ doon wane eggul bi dama ko boole ak ay accessoires yu bëri parce que foo tamit daf ci am solo quoi. waaw foo xësalëx <laughs> maanaam xësalëx. gis na bi <laughs> tey tey émission bi en même temps bandeau soo ko takkee collier da jékki-jékki génnee ko takk ci bët yi. ci bët yi takk bët waa kon bàyyi ma takk Pape Cheikh. ma naan ko bii tànk tànkal <laughs> la wala. potee la potee la. ah mu lay wër ci néeg bi. bu ma jàppee rek. Ah. maanaam soiram neex. d'accord dama naan lii la chérie tu es où. bii ci ah, ah, lonk ko lonk pour mu dimbali ko. <laughs> chérie. oui yóbbu ko ci lal bi yóbbu ko yóbbu ko fu ma neex ah. kon viens Pape c'est ici sa saison gi. <laughs> d'accord <laughs> c'est bon hein? donc yii dafa dafa dama ko hmm? travailler fii fil bi dama hmm. ko importer pour permettre aux femmes di am différentes textures fii ñu Sénégal du ñu xam fil euh, de pêche ak fil coton mais indi fil bi pour di ci hmm. travail lii. pour di donc c'est dommage que ah, mënuñoo mënuñu wax lépp ci émission on essaie juste ñu expliquer tuuti euh, parce que am na ci yoo xamante ni duñu fa mën a yegg. Ah, euh, malheureusement mais on voulait juste attirer seen attention ci ni euh, am na ay créateurs yu nekk fii Sénégal ñu ngi yëngu ci domaine bu nekk. Hmm. te domaine bu ne daf ñuy jëriñ te domaine bii ñuy waxtaanee peut-être ah. souvent day nekk ay sujets xaw ma tabu la ñu koy wax du neex a waxtaanee ci hmm. télévision. Sénégal ah. juste euh, voilà. am na euh, ku marié wu ci salle bi balaa dex yi toog seen i kër di na de on est là pour. soo amee mariage. Mhm. Mhm. xam na tey dañu bëri dañuy bëgg di offrir lingerie. Mhm. ci mariage yi. moo tax ma indi emballage bu mel nii. pour permettre aux femmes. di recevoir ay cadeaux xam na tey suñu la joxee. bi kay xam dañ ah, koy danay kontaan. mais tey dañ koy jox ma mais nañu ubbil woon lu nekk ci biir ma woon leen. ñu ma jox ko moom spécial mariage bi la waaw. non miel bi bu ko ubbi xool. moo fi am jëkkër ko ñu présenté ko gars yi. Eh, yokk leen lamp yi mu day leer. non yeewu leen toujours. waaw nga indi Pape Cheikh. waaw parce que fi mu ne lépp a ngi leer ñëpp ngi xam. awaay ah, ah, na ko teg voile bi. ko daal. tegal ah. génneel gis. deux la. waay waay waay loos bi ak. loos lay def bi du def soutien bi loos lay habillé. avec la taille. d'accord. waaw mooy ko. seetoo seet. boobu ci suuf lay dem. ndigg li. ndigg li. Ah, ma taxal la li <laughs> day wàccal yow ah, day na day na day na day na na peut day na voilà day na. Ah, pour habiller le guddi la ba tey. yëpp guddi rek laay liggéey waaw waaw. <laughs> Kira Kira d'accord <laughs> voilà euh, ak lan rapidement. donc c'était ça il y a euh. les huiles de massage également yu ma génnee pour mm-hmm. gën a xoromal toujours euh, huile de massage de ah. gamme yi bokkul mm-hmm. sensuelle et aphrodisiaque avec une crème également pour soo yàggee ci sëy bi mm-hmm. dafa laaj na continuer di alimenter lu mun dooleel Merci. le couple. donc crème bi. pour couple bi la. voilà suñ ko essayé danañ xam lu muy def. voilà crème de couple